الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratul maida ci kàttanu borom bi ñuy jël tey benn aaya muy aaya 41 benn aaya bi sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ci jàngal mbir yi di ñëw sunu kanam bi ci njëkk mooy istihbaab tarkul xusn bijtinaabi asbaabi wa miraathi dinañ jàng tey ci aaya bi nekk sunu kanam bëgg bi nu bëgg ci jullit mu bàyyi di naqarlu di naqarlu di moytandiku sabab yi nga xam ne mooy indi naqar lan moo tax ab jullit warul naqarlu mooy boo jàppee ne lu am yàlla moo ko teg sa kaw ndax yow war nga am naqar su fekkente ne yow li ngay wax dëgg la dangaa bëgg yàlla yàlla ne na da ma bëgg nga ni waaw mu teg la dara loolu daf la war a neex wala daf la war a naqari daf lay neex su fekkee ne dëgg la gëm nga képp koo bëgg bu la tegee dara da nga koy tegoo da ngay gis xale bu góor bu bëgg jigéen jigéen bi daal di koy teg nangam ak nangam ñu ko xam nga weer waa ngi sori korite lañ jëm mu ne waaw est-ce que xam nga ni man damay korite mu ne waaw xam naa ko kay est-ce xam nga ni léttooguma am na ku ma bis de est-ce xam nga ne léttooguma mu ne waaw léttoogoo kay léttoogoo kay est-ce xam nga ne xotteeguma mu ne waaw mu ne est-ce xam nga ne amaguma daal mu ne waaw waaw loolu lim ñaata la ne envers soixante-quinze mille rek non nga ga waaji na non grawul quoi grawul oui gis nga affaire bi neex ko lool pourtant xëy na mënu ko de mais ki ko bëgg moo ko teg moom mi bëgg mu tegoo ko allahu akbar gars yi nee nañ da ngay ànd ak benn xale bu jigéen ci jamonoy sedd sedd mu sedd guy mu jékki-jékki ne la dama liw nga ni kërëj costume bi wala jaget bi na ko boy jël say loxo dugal sa poos quoi ngeen continuer dox pourtant yooyu da ngaa liw wala liwoo liw nga wala liwoo da nga joxe kos bi parce que ki la bëgg moo la ko teg nga tegoo ko kon yàlla bu nu tegoo dana war a tegoo moo tax jarul naqarlu jarul di am naqar di ko feeñal di ko wax di jàmbat di kebetu déedéet yàlla def ko tere dañu bëgg ci ab jullit bëgg nañ ci moom tarkul xusn mu bàyyee naqarlu rawatina daf koy wax wala daf koy feeñal waaye mu moytandiku yoon yi nga xam ne daf lay yóbbu ci naqar gaa yi gaa yi raw yi gaa yi boroom xam-xam yu mag yi raw dañ naan fa kullama faala aljalil fa huwa jamil fa kullama faala aljalil fa huwa jamil ñu ne ku màgg ku mu def rek looloo rafet yàlla lu mu def looloo rafet moom sunu boroom subhanahu wa taala sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam la woo ne ko yaa ayuha rasul ey yow sama yonent lim koy tere mooy lii ñu wax fii bul naqarlu bul naqarlu keroog yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tere woon jullit yi ku am dëj di jooy maanaam di yuuxu terewul jooy yi waaye yuuxu gajj sa bopp salleeru bërëngu comme tey niñ koy defee diw deena rek nga gis ku bërëngu di wiqu te soo bërëngoo bërëngu bërëngu ba sonn après bu ñu la jàppee nga ni teg noppi rek lay kon koy jarul bërëngu
sa papa moom la ma yónni nee na kii dafa bëgg faj doom daal te amul moom
su ko defee mbokk yi naqarlu googu nga am jafe-jafe di naqarlu di yuuxu yonent bi daal di koy tere doomam génn àdduna bu tudd Ibrahim ñu gis ñu koy suul ñu gis yonent bi bët yi di sotti rongoñ sahaaba yi ne ko ah waaw hatta yow di yow li nga nu tere woon mu ne terewuma leen woon lii de li ma leen tere woon mooy ay yuuxoog bërëngoog salleeroog di kepetu amma lii yërmande la gu yàlla def ci nit ku nekk xol bi dafay am naqar jafe-jafe tey am na ku wàññeeku ci moom bët yi day tuur rongoñ waaye gémmiñ gi du génne lu dul lu neex yàlla soo amee métit xol bi mun na ko yëg ndax métit bi na ko xol bi yëg bët yi mën naa tuur rongoñ waaye na nga fexe ba làmmiñ bi bu mu génne lu dul lu neex yàlla foofu la ñuy xamee dëgëre martaba yi ñi nga xam ne nattu yi yàlla teg seen kaw ñan ñoo ko nangu ak ñi nanguwut yonent bi alayhi salaatu wasalaam romb na ku jigéen doomam faatu ñu koy suul ndaw si di yuuxu di bërëngu daanaka mën nga ne xaw na topp nit ña ba ci armeel ya waaw bi yonent bi doxee ba yegsi ci moom ne ko tee ngaa muñ mu ne ko muñu ma waaw li ma dal dalaa dalul yonent bi daal di boole wu ci wax dafa wane ginnaaw nit ñi ne waa ndaw si xam nga ki doon wax ak yow mu ne déedéet ñu ne ko sayyiduna muhammad moo doon wax ak yow mu ne allahu akbar xaw ma ko woon nu may def ah gaa yi ne ah dem na de mu bàyyi ba ci suba sa ndeysaan mu ñëw ne yonent démb bi ngay wax ak man xaw ma ne woon yow la yonent bi ne ko as-sabru inda sadmatil ula muñ mooy ba mu dalee waaye affaire bi passé na ba sedd nga ñëw naan muñ nga léegi mu ñëw da nga cee mënatul dara muñ mooy ba mu la dalee bi mbir mi ne tëll sa kaw nga xool muy lu metti nga fàttali ko ne ab jullit nga nga muñ nga muñ ku muñ nag du nekk di naqarlu koo gis muy kepetu nangam nangam nangam nangam nangam muñul ku muñ du wax ndax muñ mooy xabsu nafs ala ma takrah muñ mooy nga poñe bakkan bi ba lii mu bañ a jël mu jël ko lii mu bañ a def mu def ko su ma doon joxe misaal da ngeen a woor da ngeen a woor ah ndax koor gi neex na neexut neexut waaye dañoo poñe bakkan bi def loo ko ko ne ko xoolal bakkan mu ne ñu ne ko fal force da ngay woor parce que yàlla moo nu ko sant waaye neexut xam ngeen ne neexut de heure bii ñun ñëpp heure bi waroon na fekk ñu toog waaw ñu tegal ñu sunuy boolu ceeb ataaya ji waajal pare gaa yi di defar fee njar ñee di dagg fee mango yi nga jaaxaan wala wala waa léegi nag waxtu woowu yàlla ne la eh bu lekk de acca da ngay woor nga jàpp sa bakkan bi poñe ko ne ko da ngay woor parce que yàlla moom ko sant nii nga poñee bakkan bi tey ba mu bàyyi lii nga xam ne moom la waroon def te yàlla bëgg ko muy lekk ak naan est ce que kon bu koor gi jeexee doo mun a poñe bakkan bi ba mu bàyyi lu bon añ ndékki dafa dagan wala dafa araam añ nag dafa dagan reer dafa dagan waaye yàlla fexe na ba nga poñe bakkan bi mu bàyyi fi ñaar yu daganoon muy ndékki ak añ nga teg ko fee ci côté te dafa daganoon waa léegi bi la yàlla forcé ba nga def bàyyi lu dagan lu tax mu forcé la ne la bàyyi lu araam nga bañ déggu leen ma de xaram ma delluwaat ci wax bi ma ne ndax ndékki dafa dagan dagan na añ nag njoganal nag ah félantu nag félantu diggante suba ba ba ba ba timis félantu di fël yooyu affaire yi ataaya yeeg boisson yeeg ah yooyu ngay fël ci diggante bi dagan na wala daganu dagan na yàlla ne la bàyyi ko bu ko fi def nga bàyyi ko ne ñun ñëpp bàyyi nañ ko bàyyi nañ wala bàyyiwuñ ñun ñëpp bàyyi nañ léegi nga bàyyi li dagan te yàlla moo la ko bàyyi loo nga bàyyi koor gi jeex yàlla ne la léegi nag man dama laa waxoon bàyyi lu dagan nga bàyyi léegi nag waxutuma lu dagan mais lu araam laa wax nga bàyyi mënoo bàyyi lu araam li dañ seetaat suñu bopp ñu bàyyi loolu lu dagan nga bàyyi ñu bàyyi loolu lu araam nga ni mënuma ko bàyyi te lu araam moom dan la ko tere lii moom dan la waxoon baax na ba càgg ñu ne la baax ñun ñoo la waxoon baax na nga ni waaw ñu ne waaye diggante sàngam ak sàngam bu ko fi defati nga ni waaw waaw mun naa ko ñu ne bismillah nañ essayé yàlla di essayé yow benn fan ñaari fan ñetti fan ba ñu xëy ne 30 jours yoo xam ne essayé nga ko yàlla ne sa waay jàmbaar nga yow daal dinaa la takkal diplôme diplôme bu ñuy wax at taqwa waaye léegi nag comme yow dama laa waxoon bàyyi lu dagan nga bàyyi léegi nag takkal naa la diplôme yéeg nga ah jóge nga ci classe dem nga ci classe yéeg nga ba ci kaw ngal la waaye nag léegi na nga bàyyi lu bon dégg nga mais maar asaf premier jour ba bi yàlla takkalee waa ji garaat mu yëg ci podium bi ba ñu takk ah waa ji diggante foofu ñu ko takkalee garaat bi ak muy wàcc podium bi rek bàkkaar yi commencé na wala bàkkaar yi commencé gul carte soirée yi kañ lañ koy bind est-ce que instant yi amul ñu commencé bind sax ah carte soirée yi laa wax kañ lañ koy commencé bind jour korité bi ci guddi ga ñu avant ñaata fan allahu akbar au jour de korité ah rendez-vous au revin rendez-vous au rendez-vous au homme femme kii est-ce que wooroon na kii est-ce que wooroon na kon kii est-ce que wooroon na yow mi est-ce que wooroon nga ndeysaan wooroo woon da ngaa bokkoon ci ñu doon xiif rek xiif nga 30 jours mar nga 30 jours jeex na loolu yow loolu nga ci jëlee xoola ki entraîné jaamu yàlla entraîné entraîné jaamu yàlla fanweeri fan fanweeri fan yi jeex nga delluwaat ci bàkkaar nan leen ci yàlla musal gars yi nañ leen sax as sabaat nañ leen riposté góor dëgg suñ ko dàqee day taxaw du day riposté même bu lay rey da ngay riposté waaye ñu dàq la nga daw ba say daal réer nga ñëw ñu ne la waaye sa waay yow de da ngaa daw nga naan daw ba raw ci ngóora la loolu kay du ngóora waaw même ci xeex diggante jullit ñeeg yéeféer yi yàlla day day tere ku deltu ginnaaw lu dul deltu ginnaawu stratégie pour mën a jekk waa ji waaye daw alxuraan daf ko tere de te daf ko daf ne keroog ku def loolu kooku moom yàlla pare na ci moom ku won ginnaaw sa yéeféer nga won ko sa ginnaaw gii yow pare nga te dara taxul mu dul daw ah yàlla nee na yow pare naa ci yow kon naka nga bëgg a jàkkaarloog seytaane di daw te yàlla li mu ñu wax ci alxuraan alxuraan mooy seytaane nit ñi dañ naan seytaane dafa dafa bëri doole doole ñu wax ii seytaan dafa bëri yàlla danay seytaane dooleem bëriwut yàlla loolu lañu wax de ñun li nu gëm mooy seytaan dafa am doole yàlla dana seytaane amul doole waaw seytaane amul doole waaye nag li dal waa Sénégal mooy la daloon jinne ya ca mu ca Souleymane li dal waa Sénégal mooy li dal li dal waa Sénégal mooy li dal jinne ya ca Souleymane mooy li dal jinne yi ca Souleymane Souleymane lan moo ko daloon ca ak jinne yi mooy jinne yi Souleymane taxaw na dee na bu yàgg ay at yu bëree bëree bëree bëri jinne yi liggéey xamuñu ne Souleymane daa dee benn daaba bu ndaw moo ñëw dugg ci yax yattu Souleymane bi daaba mu ngi tudd ci olof max max taarifu na max max max xam ngeen max max moo ñëw dugg ci bant bi lekk bant bi lekk bant bi xoolal ñaata at max daanaka gunóor gu ndaw la ñëw dugg ci bant bi di ko lekk di ko lekk di ko lekk ba egg ci kaw loolu ñaata at la loolu yëpp jinne yaa ngi liggéey amul noppalu 24 heures sur 24 nii ba max mi lekkee bant bi ba bant bi jeex amatul doole Souleymane comme dafa taxawoon yaram bi ëpp doole bant bi bant bi damm Souleymane daanu keroog la jinne yi xam ne kii daa dee bu yàgg ñun nag loolu moo nu dal la daloon jinne yi moo nu dal ñun danoo nekk ci loo xam ne xamuñu ko dara leerul ci ñun lépp lëndëm comme Souleymane taxawaayam boobu mooy ñun waa Sénégal taxawaay boobu yëpp Souleymane taxawoon ñun ci loolu la nekk nii di yëngu rek di dugg lu nekk ñu dugg ci njaaxóor yu nekk lu xóor gu nekk ñu dugg ci kañ la mbir mi di leer ci ñun ba bayat ba dammee Souleymane daanu la jinne yi ne yàlla ne ba mu leeree ne tey jinne yi Souleymane daa dee ñu daw dem seen yoon loolu moo lay wan ne jinne yi xamuñu kump law kaanu yaalamuuna alxayb ma labisu fi lazabi almuhin suñu xamoon kumpa kon duñu sax ci mbugal mu tar mii ban mbugal mbugalu nangami at ñuy liggéey mais xamuñu moo tax chaque jour ku xamul ci musiba rek lay nekk ñu bari dañuy nekk ci ay loxoor ci biir dëkk bi dafa ne ci diina lañ nekk xoole ki yàlla yeewuloo fajar dem jàkk mënut a yeewu ki yàlla barki démb damay dem Grand Yoff di def waxtaan ginnaaw bi ñuy naafi la taxi bi ma jël bi ñu rombee deux voies yi ah deux voies yi nekk fii ci tool yi am na fa benn espèce parking bu ñu defar pour nit ñi di fa entraîner mais li ma fa gis ci ay nit dama waaru dafa fees del del ay góor ak jigéen mu leer na nit ñi kenn naafila wu ci ndax heure naafila la waaye ñi ngi ci ñi ngi entraîné ba ci weeru jaamu yàlla sax nit ñi ci caaxaan la ñuy nekk lu tax parce que xamuñ la daloon jinne yi leen dal xamuñ ñu ñi la dal jinne yi nu dal loolu benn tomb la ci lu ñu war a jël yàlla di nu tere nuy naqarlu ci sunu yépp ba di ko feeñal ak yoon di jaar ay yoon yi nga xam ne yoon yooyu def ñuy yóbbu ñuy feeñal sunuy naqar ci yàlla li muy teg sunu kaw mbokk yi ab julli dëgg dëgg dëgg day nangu lu ko yàlla teg bu dee wér bu dee wéradi bu dee am bu dee ñàkk bu dee mën bu dee tële lu mën a doon da ngay feeñal ne yow lii yàlla teg la neex na la waaw mais léeg-léeg nga gis koo xam ne yàlla da koy teg dara mu bañ ne lii du nekk mu daw daw daw daw daw daw daw daw ba jeexal ba nga xam ne jeexal na mënatul dara gars yi ne ko léegi nag mu ne yàllaa fi des loolu mooy doo am tiyaaba loolu benn tomb la ñaar mooy xurmatu simaaul kazibi déglu ay fen dafa araam jullit du déglu fen jullit du déglu fen waaye jullit du nekk fenkat te fenkat du nekk sa mbokk fenkat du nekk sab xarit mbokk yi fen day détruire société fen boroom xam-xam yi nee na alkazaabu lis fenkat sàcc la fenkat boroom xam-xam yi nee nañ fenkat sàcc la ñu ne ko lu tax ngeen wax loolu ñu ne asaariqu yasruq mata ak sàcc lan lay sàcc say bagage ah sàcc lu muy sàcc say bagage amma alkazab yasruqu aqlaka sàcc fenkat sa xel lay sàcc day ñëw toog ak yow di wax di wax di wax ba nga gëm ne li muy wax dëgg la nga def ko fekk sa xel la sàcc li muy wax dara amu ci wala fen bon fenkat day gis dëgg mu def ko neen day gis lu sori mu jegeel ko day gis lu jege mu soril ko day gis guddi na bëccëg la loolu tax yonent tudde woon musaylimatul kazzab musaylimatul kazzab fan la mujj day gis mbaam bi ñëw fële mu ne mbaam a ngi ñëw balaa muy yegg si yàlla def ko xar yonent bi tuddee ko musaylimatul kazzab jullit doo nekk fenkat doo bëgg fenkat dooy déglu ay fen fen nag tey ci àdduna société bi ñu dool néew na ku ci mucc waaw néew na ku dul fen laa wax néew na néew na borom kër gu dul fen yaay ju dul fen wala papa ju dul fen wala maam ju dul fen kër goo xam ne fenkat amu fa ak a néew bariwut de fen fan la yóbbu nit iyaakum wal kazib yooyu ne mooy te ndiku leen fen fa inna al kaziba yahdi ila al fujur fen day yóbbu nit ci kàccoore booy fen di fen di fen ba ci yàgg dara dootu la sax da ngay mujj ñu la jox la rajo bi ngay fen rek di maye. léeg-léeg nga gis kuñ bëgg ne la fenal dañ naan la mayal nga naan amoon na fi te xam nga ne da ngay fen waaw benn waay demoon na jàngi hadis dëkk mu jóge dëkk dem dëkk mu ñëw fekk sëriñ bi jàngale di bëgg a jàpp benn xar bu ko rëcc sëriñ baa ngi yor benn leket goo xam ne dara nekku ci mu ngi naan xar bi bar fii ñun ñi ñëpp noonu la ñuy def da ngay bëgg a jàpp xar wala ah wala nga jël benn paan bu amul dara naan bar bar naan ko nii xar mi dafa ne paan bi dafa am ngooñ ba yegsi rek nga ni ko kiricim waa ji demoon jàng bi mu xoolee sëriñ bi sëriñ bi def loolu dina xar mi dina xar mi ba ni ko kiricim waa ji daal di wane ginnaaw di dem sëriñ bi ne ko asalaamaaleykum eh yow da nga doon jàng si mu ne waaw mu ne foo jëm mu ne damay ñibbi mu ne da ngaa jàngatut mu ne ko yow doyoo ma pour jàngal ma mu ne lu tax mu ne dama laa gis nga fen xar mi kuy fen xar yi dina fen nit ñi moo tax dafa am lu bari loo xam dañuy jàpp ne du fen fekk fen la ñaata ci ñun fi ñooy wax sa doom dawal nga ñëw ma may la ah dog sa arima mi rokki mu ñëw nga ne ko mi funtiima woni afini ku ne sa doom demal nga ñëw ma may la mu dem ñëw joxoo ko yow fenkat nga yonent bi nee na yow fenkat nga moo tax yonent alxuraan di nu tere ñu nekk ay fenkat waaye ñu bañ ko ñu bañ ko dégg déglu xurmatu dafa araam simaaul kadibi déglu ay fen li gayri xaaja bu fekkee ne fen yooyu amoo ci benn soxla jarul nga koy déglu ndax lislaam li mu daganal ci ay fen ñett dong la ñetti fen la islaam daganal mooy lan ban ak ban la ñetti fen lañ daganal ban ak ban la jëkkër ak jabar ñaareel jubal ay nit ñetteel fenal fen ci noon yi fen noon yi pour war leen jeex na yeneen lu dul li nag boo ko defee fen nga waaw waaw kaay maye nga maye ndeysaan seetaanoon naa benn ci te benn chaîne télévision waa ji def émission pare ñu ne ko nag fii ku fi ñëw da ngay maye mu ne man duma maye ndax maye ay fen la te man duma fen gaa yi wax wax mu ne leen duma ko def jóg jóg ñibbi waaw noonu la ab jullit di def waaye wax ba pare nga daan waaw te yow ñu ne la yow borom xam-xam nga borom xam-xam day moytandiku fen ndax nit ñi dañ lay xool nit ñi dañ lay déglu saa yoo fenee nit ñi dañuy jàpp ne fen mun naa nekk dem di ko def beneen bu nuy jàng ci sunu aaya bi nu nekk sunu kanam mooy xurmatu taxrif kalaam soppi wax waaw comme li dal li ñu dal tey su yàlla waxee nii ñu ne noo waxul lii lii la wax su yeneen bi waxee lii ñu ne noo du nii nii la soppi waxu yàlla ah wa taswii lil ifsad ak encore di tas mbon pour yàq mbokk jullit yi ay mbir la yoo xam ne sunu boroom subhanahu wa taala daf nu koy tere ci benn aaya bi nekk sunu kanam su ñëwee ci nas bi mooy bismillahi arrahmani arrahim يا أيها الرسول لا يحزنك لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد موادعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم يؤتوه فاهزروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم sunu borom ne yaa ayyuha rasul ndeysaan gis ngeen chaque jour ñu wax ne sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko weg weg hatta yonent bi ya yàlla dafa weg yonent bi waaw léegi bu fekkee yàlla dafa weg yonent bi ndeysaan ba suy wax ak moom sax du ko ne yaa muhammad déedéet yaa muhammad amul ci alquran yaa Musa am na ci wala amu ci yaa Nuux ah yaa Ibrahim yaa yaa yonent yëpp yàlla jaar na ci seen tur woo leen ne leen eh waaye Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla musta jaar ci turam sàllalu ko même fu mu wax Muhammad sax da ngay gis mu teg ci dara. yaa muhammad mbokk yi amul ci alquran loolu loo ci dégg mooy yàlla moo bëgg yonent bi daf ko wekk daf ko respecté su fekkee yàlla respecté na yonent kon ñun lu nu war envers yonent est ce que kon waxuma la yonent bi ñun war nañu wax ak yàlla di ko sallawlu di di di ko joxor bi di ko jàmbaaraam comme sawaay lim def ah jullit day am teggin ci boroomam jullit day yaru ci ab yonentam ndax loolu la yàlla waxoon sahaaba yi même bu ñuy wax ak yonent bi mu ne leen laa tarfaw aswaatakum fawqa sawti nabi seen kàddu bu mu gën a kaweeti kàddu yonent bi allahu akbar keroog ba aaya bi wàccee amatul sahaaba buy wax di yuuxu ci kaw yonent bi te ñooñu doon def loolu li doxoon aaya bi wàcc lan lañ defoon ñëw kër yonent bi taxaw ci buntu bi naan waa anamu waaw ana yonent bi fu mu nekk yàlla ne leen déedéet bu mu ñaar mujj nañ kuy wax ak moom comme nii ma jàkkaarloo yéen kuy wax ak moom da ngay ñëw ba ci nopp bi kenn du ko dégg mu ne la waaw même bu fekkoon ne sax da ngay jàppi wala da ngay dugg ci wanag wi da ngay ñëw ba ci moom daal di ko ma bëgg ma am soxla mu ne la waaw kenn xamul yan ñaar rek foofu la gaa yi mujjee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ñooñu dañoo xamoon kan mooy yonent bi waaye ñun xamuñu ko moo tax lu neex la ñuy wax waaw léeg-léeg sax nga gis ku ne ñun suñu kilifa gi moo raw yonent bi seetaan naa ci youtube benn vidéo bu ñu ma envoyé woon benn waay ne sunu waa ji sunu waa ji dëgg dëgg moo raw sax yonent bi ngeen di wax sunu waajee ko raw daal di tudd turu waa ji ndeysaan xeet wi di xeetu lislaam umma bii di ummatu muhammad képp ku gëm ne am na fi ku raw yonent bi bu yeboo nga bàyyi julli bu yeboo nga bàyyi woor bu yeboo nga xam ne bis ni ki tey yob ab yéeféer nga waaw xeet bi muhammad a ci gën waxuma la xeet bi waaye ñi ñëwoon ak ñépp ñi dem yonent bee leen gën sallallahu alayhi wa sallam li yàlla bind muhammad a ci gën leer na wala wala dafa am ku ngeen di sikki sàkk ne moom est-ce que moom xaw na tolloog moom dafa am kooku ngeen di xalaat dafa am fii ci ñun ci biir jàkka ji kuy xalaat ne am na ku xaw a jege yonent bi ku tolloog moom wala mu raw ko kooku juddoogul kooku juddoogut waaw te du juddu même sax suñu sëriñ si wax nañ ko alaaji malik nee na law lam yalux fi lfadaai lkawni tabatuhu tabqa albariyatu fi zalmaai allah nee na sayidina muhammad bu feeñu doon ci àdduna ñépp dugg ci lëndëm jëm safara cheikh ahmad bamba ne lam yabdu misla mustapha sirran wa jahlan fi lbaraya sarmada lam yabdu musta feeñ mus ñoo gis misla mustapha ku mel ni muhammad ci lu feeñ ak lu nëbb ne musta feeñ kenn mus ko gis cheikh ahmed hamid kis mu ne ci kasatam ya maa xalaqa al ilahu wala yura basaran ka muhammadin bayna al wara mu ne yàlla bindul maa xalaqa al ilahu mu ne kenn du gis wala tura mu ne basar mbindeef moo xam ne ah comme muhammad la mel nee na amul almuslimu almuslihuna asaabiun jumiat yadan bal anta yadul bayda ñi doon defar àdduna ay baaraam lañ ñoom ñëpp dañ leen dajale def leen loxo muhammad mooy loxo bu weex bi muhammad mooy ki xuus ki joow gaal gaalu gaal gaalu lan gaalu yaakaar ñi amuloon yaakaar dem ba yekkeeku muhammad moo puus seen gaal ba teeral ko ci tefesu borom bi tabaraka wa taala al umiyi allazi allama al mutaallimin muhammad mooy ki jàngul te moo jàngal ñi jàng te jàngul benn école amoon na benn professeur bu fi ñëwoon naan muhammad dafa jàng jàggul dara de ah démb dégg est-ce que tegaatuñ ko kooku dee na te bu muy dee dafa torox dee na bu yàgg yëgoon ngeen ne dee na de balaa muy dee dañ ko génne université buñ ko génne université mu bëgg a dem France waa France ne ko te ñoo ko doon ngemb waaw waaw parce que moom ci daanaka niveau Senghor la ci ñi raw Sénégal français ci la bokk kooku normalement xam ngeen français war na ko bàyyi mu ñëw waaye yàlla moo ko namoon toroxal moo tax ñu ne ko mu luwe kër mu luwe kër amul lu mu fay ñu génne ko ci bitti mu ñibbi Cees ci ay mbokkam feebar dee yàlla ngoog yàlla ku ko yeb yàlla yàkkamtiwul gars yi dañu mu sax yow yàlla lu tax ku la tooñ rek doo ko def nangam mu ne déedéet sàcc bu dul raw jarul yàq nelaw sàcc bu dee day dugg ci kër gi dajji buntu ñëw dugg jël armoire bi tegale bagage yi balaa muy dem nga yeewu ne ko niib yeewu est-ce que jar na kon buy sàcc nga yeewu yàlla nee na jarul may def loolu ndax ñoom ñëpp lu nu wiiri wiiri wiiri dañuy ñëw ci man lu nu wër wër wër wër wër dañuy ñëw ci yàlla waaw loolu tugalóor yi naan baytool ko juuti foofu artata ko yaa muhammad kii sikkar kii sikkar takk rajo di di di sikkar li muy sikkar lu mu gudd gudd gudd gudd gudd balaa muy jeexal dina wax yaa muhammad waaw foofu rek lay teereewaat kon yàlla subhanahu wa taala dafa woo yonent bi ndeysaan te weg bi mu ko weg moo tax mu ne ko yaa ayuha rasul waxu ko yaa muhammad dafa ne ko e yow sama yonent ndeysaan huwa nabi muhammad nee na rasul fii li muy tekki mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam xaatabahu rabbuhu yàllaa wax ak moom bi unwaanu risala ci message bi mu ko yónni ci la ko woowe ne ko eh yow sama ndaw yow mi nga xam ne yaay sama message maa la yónni ci baat boobu la ko yàlla woowee lu tax tasrifan lahu wa taaziman sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko loolu ngir màggal ko ngir yëkkati darajaam ngir rëyal ko ngir wax nit ñi ne kii ma leen yónnee ñu ne ah du ko ndaw de kon bu leen ko ndawal ndax man mi ko yónni gis ngeen jaaruma ci turam sax ndax dama ko ne yaa ayyuha rasul e yow sama ndaw li kon loolu màggal la tashrifan wa taaziman wa isaaran lahu bi adami daai alxusn yàlla da koo wone ko yow sama ndaw ndeysaan xam ngeen yonent bokk na ci problème yi mu amoon jafe-jafe yi yonent dafa bëgg xeet wi yonent dafa bëgg jullit yi bëgg xeet wi moo tax bi mu ñëwee mu sonn lool xam na aljanna ndax dem na gis na aljanna gis na safara ni mu graawee moo tax bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy tekki kaalaam takk ci ndigg li ne kenn du dugg safara ndax gis naa ko ñëpp àjjana lañ jëm mu nekk ci nekk ci nekk ci nekk ci affaire bi metti lool gaa ñi bañ lànk yëf yi commencé ko metti yàlla nag ci la ko wone ko yow sama yonent mbir mi bu mu la metti waaye yonent bi ñàkk gëm nit ñi daf koo metti waxuma ko de alxuraan moo ko wax laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum laqad ca dëgg-dëgg jaakum ñëw na ci yéen dikke na leen rasulun yonent boo xam ne min anfusikum ci yéen ñii la bàyyeekoo nit la ne yéen léeg-léeg nga gis kuy tàgg sëriñam ba ba rombal ko nit du nit bu dul nit lan la kan ko wonaa ne soo wonaa ne da koo woni yenn saa yi nga gis ku ne dammitu malaaka la malaaka dañ koy damm ndeke am du nit billaahi du nit non kooku du nit képp ku ngeen dégg mu wax kilifaam wala mu wax kenn kooku du nit xas na ki mu wax lu tax lu tax nit li yàlla bind nit a ci gën kon yow bu ñu la nee doo nit lan nga xam ngeen l'observateur fan yi ci koor gi toogaaleel foofu benn yoon fan yi ci koor gi su suñu waxee ci yonent bi toujours dañuy indi benn kilifa diine ci ci Sénégal ñu ne nangam nangam na yéen a ngi koy xool am na ci koo xam ne dégg naa ñu ne mun a bokkul ci aadama moom bokkul ci aadama bii liir ngeen ko ah su ngeen demee ngeen uti lobs yi passé di ngeen ko ci gis waaw nee na waajooju moom nee na bokkuma bokkul ci aadama bii moom bokkul ci aadama yéen ci ban aadama ngeen bokk aadama alayhi salaam moom nee na bokku ci beneen aadama la bokk aadama boobu moom ban teer la ko yàlla wàcce woon bën suuf xoolal yooyu rek ay diw bokkul ci aadama bi ci aadama bale la bokk wala diw moom moo mag yonent bi ah subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun su gis nga di nga jàng histoire El Hadji Omar wax nañ ko ci comme kooku moom moom laa ñëwee ñu ne El Hadji Omar tukulóor yi nee nañ alhaji Omar Omar tawaa wolde badri hmm? ñu ne fekke na xeexu badar omo omo waɗɗi puccu njarlu alkabeeɗe laalaade omo ɓurni wutte tekke loolu la ñuy way noonu ñu ko waxee ci El Hadji Omar lañ ko waxee ci sëriñ yi Sénégal gi yëpp ku nekk ñu wax loo xam dara du ci dëgg amul naka ngay naka la nit di fekkee Badr te judduwul naka la di ajee màkk judduwul naka la nit di defee yenn yi te judduwoo fo yow judduwoo noo koy defee amoo nekkagoo hal ata alal insaan hiinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkur noo koy defee nekkoo waaye ñàkk jàng alxuraan moo nu alak ak bëri ci sëriñu Sénégal yi ñu ñaan xeex nañ Badr xeex nañ Badr keroog Badr diw moo yoroon jaasi ji diw moo yoroon drapeau bi keroog diw moo yoroon persol bi tiim yonante bi moo ngi nii kii la te kooku Sénégal la dëkk dëgg-dëgg waa Sénégal ay jàmbaar lañ nag waaye demuñu Badr nag dëgg yaa ndax Badr moom Makka la woon Arabie Saoudite wala dëgg nañ wax dëgg Sénégal ñu baax a fi nekk nag waaye nag demuñu Badr nag demuñu Badr kenn demu fi Badr nag waxee ñu ne gars yi non ñii bu la wax ak ñoom zahir lañ xam quoi affaire bi baatin la fa kam min baatinin yawma alqiyama baatilan fa kam min baatinin yawma alqiyama baatilan bëri na ku naan la baatin baatil la baatil mooy neen kon yooyu amul gis ngeen yonent bii sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg sax nga dégg ñu ne moom mii moo jiitu aadama dañ koy wax yonent bi muhammad léeg-léeg nga dégg gaay ne yonent bi nee na yonent bi dafa ànd ak jibril mu ne jibril yow ñaata at nga am jibril ne ko ah man de wax dëgg yàlla xaw ma ñaata at la am waaye am na benn biddéew buy génn fii téeméeri at yu nekk xaw ma dina génn benn yoon xaw ma junni at yu nekk dina génn benn yoon biddéew bi de fii lay génn yonent bi ne ko man maay biddéew boobu ah wala loolu rek loolu ban da ban aaya la xam ngeen yonent bi ñaata at la am xam ngeen yonent bi kañ la ñëw àdduna bi ko yàlla indee àdduna la fi ñëw jiitu fi kenn aadamaa ko fi jiitu ndax moom doomu aadama la aadamaay maamam mooy baayam ibrahima sax a ko fi jiitu ndax ibrahima mooy maamam kon nit mu naam ak maamam loolu mooy wahdatul wujud moom la séeréer yi gëm mooy xale bii juddu maamam bu dee woon la daa ñëwaat ku gëm loolu yaa ngi ñoom yéen a bokk pas-pas loolu baaxul nit ki daal kañ la ñëw àdduna mooy bi ñu ko gisee wallahi ci journal boobu journal yooyu ma journal boobu ma leen di wax di nga gis ñu ne koo xam ne bi muy juddu si dafa indaale nangam keene moom dafa dee benn jigéen la nekk loon ci kër gi mu dee ndaw si ne ko bàyyi li ngay def diw nekk fi boo dee léegi da nga may indi problème bul dee ba mu ñëw nee na mu dekkiwaat kooku ñëw mu wax ak moom ba pare doog a dee Sénégal moo neex dafa mel ne ñoom yàlla dafa mel ne yàlla dafa yor benn bureau boo xam ne ñoom dañuy communiquer ak moom di def lu leen neex quoi xool affaire yi yëpp journal bi bis bu nekk dina indi kenn laa la wax ba bu waxee lu baax ba pare balaa muy pare mu def benn dégât mu def benn penalty yi naka la nit di dee ba pare kuñ kenn ñëw ne la ñoo xam nga boo fi dee man ak yor ñoo fi nekk danga may sonal bul dee mu dugg mu jógaat toog ba kooku ñu doon wax ñëwaat mu wax ak moom ba pare dee xanaa dee day tàggoo dem di ñëwaat yonent bi nit la ne ñun dafa juddu ni nit ñi juddoo am papa ak yaay ñu ëmb ko weer yi ñuy ëmb nit moo tax affaire yonent bi du ay magie yàlla sànniwu ko mu plongé jóge kaw asamaan ne cëpp déedéet ñëw sax ay laaf naan ne maay Muhammad non yàlla daf ko préparé mu jaar fu nit ñiy jaar ci ndey bu sell wecc set wicc ci baay boo xam ne kenn gisul ci askanam caaxaan ndey ak baay boobu ñu jaaral leen fi ay nit di jaar ñu sëy ba moom sayduna muhammad alayhi salaam yàlla dogal ko ci mu juddu bal sax bi mu nekkee ci biiru yaayam la baayam génn àdduna gisul baayam nattu yi foofu la tàmbalee xamul papaam nu mu mel xamul dafa gàtt xamul dafa njool xamul dafa am yaram xamul dafa gis nga ndax gisu ko noonu la yaay ji nekkee noonu la yaay ji nekkee ba keroog bu muy judd abu taalib moo jël doom ji abdul mutalib moo jël doom ji abu taalib daa di wër kaaba gi juróom ñaari yoon daan ne sammaytuhu muhammada ñu ne ko lu tax mu ne li yakuna mahmudan bayna alsamai wal ard tudde naa ko muhammad muhammad lu muy tekki mooy ku ñu gërëm ku ñu gërëm mu ne tudde naa ko muhammad ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñu gërëm ko diggante asamaan ak suuf yàlla gërëm na ko bi juddu jotee dafa juddu ni nit ñi juddoo dañ ko nàmpal bal sax bañ koy nàmpal fan lañ ko nàmpale baadiya ca xalimatu saadiya da ngay dégg waykat yi di ko way xalimatu saadiya moo ko nàmpal loolu rek la ñu la way way kese way kese Sénégal way rek bu jaamu yàlla jotee ñu tëdd dina la woy bu jotee ñu fanaane fecc bu bët set wala loolu déggu leen ñu koy woy ndax xalimatu saadiya ko nàmpal kon kon dañ koo nàmpal comme ni ñuy nàmpale xale dañ ko yar ci àll ba mu ñëw màgg commencé sàmm di liggéey sàmm commerce takk soxna comme nit ñi ni ñuy takkee fii da ngay dégg ñu ne waaw amoon nay jabar sëñ bi amoon na ay jabar waaye moom ay saafara la bind rek jox ndaw jigéen ñi ñëpp ëmb yooyu la ñuy wax yooyu la ñuy maye moom musta musta fanaan ak soxna ci biir néeg non saafara rek lay jox rek ndox nga naan rek biir bi ne kuruj yonent moom dafa takkoon soxna Xadija la njëkk a denc waaw ni nit ñi mu am ay doom ni nit ñi amee doom mu am juróom-ñaari doom ñaata yu góor ñaata yu jigéen ñaata yu góor ñaata yu góor ñaata yu jigéen wax ma seen tur Fatima ah Zaynab Umu Kalsum Roxaya ñu ñooy ñeenti jigéen ñi góor ñi Ibrahim ah Xaasim Abdallah waaw waaye dañuy way rek ñu koy way rek way rek way yonent bi am ay doom ni nit ñi amee ay doom bal sax yenn doom yi faatu ci kanamam ñépp da leen a suul balaa muy génn àdduna yooyu mooy loolu moo la borom xam-xam yi di la jàngal ne yonent bi dong lañ mën a toppandoo kenn mënul toppandoo keneen ñeneen yonent yi mënuñu leen toppandoo mënuñu leen roy isa masalan su fekkee dañu bëgg a roy isa ci lan lañ koy roy amuloon ay soxna amul doom mënoo ko cee roy mboolem yonent bi da nga leen di jël ci lii nga leen mën a topp lii mënoo leen cee topp amma boo jëlee yonent bi ci lépp nga koy topp ndax dafa mat mooy ku mat ki yàllaa ko matal indi ko jaar ak moom fépp lépp pour nit ñi mën koo toppandoo yow bu dee da nga naan ah mbirum juddu ñu ne la moom daa judd mbirum coono moom daa sonn mbirum mettit lu mettit dal na ko gisul sax papaam yaayam nàmpalu ko ci àll ba la nàmpe wala yaayam tuuti la ko nàmpal après ñu mottali ko ci àll ba sàmm na wala sàmm xam ngeen sàmm gis ngeen sàmmkat yi sol say dàll yor yat nekk ci naaj bu tàng bi Seydina Muhammad def na loolu commerce ànd ak gëléem yi caravane yi di dem mu topp ci di feebar nag yonent bi sax daana toog weer cin du tàkk këram weer du lekk lu tàng allahu akbar gaa ñi kañ ngeen gëj a lekk lu tàng yéen ñi toog fii ci jàkka ji kañ ngeen gëj a lekk lu tàng ci fajar yonent bi daana toog weer cin du tàkk këram xam ngeen lu muy lekk tàndarma ak ndox benn bis sax dafa tëdd bëgg nelaw mënul nelaw ndax xiif mu tëdd tëdd tëdd mënul nelaw ndax xiif mu tëdd tëdd mënul nelaw ndax xiif mu génn boot ay loxoom di dox ci mbedd Medina mu dajeeg Aboubacar Aboubacar lan la dama xiif yonent waaw kon nañ doxantu man tamit de loolu ma génne dama xiif ba mënuma nelaw ñuy dox ñoom ñaar di waxtaan ba ci yàgg ñu tourné dajeeg Umar ah Umar góor gi heure bi tëddagul mu ne dama xiif allahu akbar ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam mais nañ dem kër abu nañ dem kër abul ayub al ansari ñu yegg si fëgg mu gis gan yi mu daw bi mu jëlee paaka bi yonent bi ne ko moytul bu ëmb mu dem reyal leen benn gàtt bu ndaw tëng ñu fees ko lakk indi li ñu njëkk a teg ci kanamu yonent bi bi mu daggaay dugal ci gémmiñam dafa woo kenn ci doomi abu ubay abul ayub ne ko abul ayub mu ne mu ne ko waxal kenn ci xale yi na dem jox lii Fatima ndax weer a ngi ni lekkul yàpp Fatima kan mooy Fatima mooy sangu jigéen ñi ëllëg yowmal qiyaam ci biir aljanna weer lekkul yàpp demal nga jox ko gars yi kañ ngeen gëj a lekk yàpp kañ lañu gëj a lekk yàpp ñu ñu toog fi gars yi weer wu nekk danañ dóor yàpp lu bare bari léeg-léeg sax nga dégg ku ne non mais koor gi garaaw na de koor gi yëpp lekkuma ceeb ah gars yi di la xoolaat koor gi yëpp lekkuma ceeb parce que ceeb bi bon mënuma ko lekk quoi ci koor gi oui parce que dafa diis quoi waaw ay dibi lañ may defal ay sur le plat lañ may tegal ay nangam nangam lañ may tegal ñi la gën ki la gën daan toog di xiif ak ay doomam dañoo lekk ba pare yonent bi jooy ah abul ayuba daal di jommi ne ko ah yow da ngaa xiifoon ñu tegal la nga lekk yàpp ba suur ngay jooy mu ne waaw lu tax mu ne summa la tusalunna yowma izin anin naim lii xéewal la ëllëg yàlla dina la ko laaj ndeke yow mi lekk ba suur nga woor ba ngoon ñu tegal la ndogu nga ndogu ba pare ne alhamdulillah yëgal ne lii nga lekk yàlla dina la ko laaj ëllëg kon booy ndogu ndogal lu ar lu dagan ci xel looy lekk mu dagan parce que yàlla dina la ko laaj kon yonent baa ngi nii yàlla woo ne ko yaa ayuha rasul yow sama ndaw sama yonent laa yaxzunuka alladina yushaaricuuna fi lkufr ndeysaan fi nihayati l aya nazalat nazalat tasliyatan li rasul aaya bi dafa wàcc ngir dalal xelu yonent bi yàlla bëggul yonent bi mer moo tax mu ne ko bu mu la metti laa yaxzunuka bu mu la metti bul naqarlu alhusnu alamu nafs naqar mooy lu nekk sa biir xol di kaj kaj waaw ndeysaan loolu mooy naqar lu nekk sa biir xol bi di bax nekk sa biir dënn bi ba ñu génn nga koy sentir di ko yëg loolu mooy naqar yàlla woo yonent bi ne ko bul naqarlu mbir mi na oyof ci yow lan moo metti yonent bi ba mu koy naqarlu ndax doomam daa dee ndax yaayam moo dee ndax ay maamam ndax dañ koo dàq fi mu doon liggéeyee ah ndax dafa amul kër gu mu dëkk ndax dafa amul lal ndax dafa amul examen ndax dafa jàng ba sonn déposer ay kayitam jëluñu ko loola tax moom yonent bi muy naqarlu allahu akbar ñun ñëpp doon ànd sëgg ci kaamil yi ñu xool tey lan moo tax yonent bi di naqarlu ban problème la am ba mu metti ko ba yàlla di ko woon naan ko bu mu la metti lan la xool leen ko kon yonent bi du sunu morom laa yaxzunuka bu mu la metti allazina gaa ñi nga xam ne yusaari'una ñooy gaawtu fil kufri ci kéeféer loolu moo metti yonent bi ñi muy gis ñuy mooy yàlla di bàyyi lu baax di def lu bon looloo ko metti xoolal ay problème am méttiwu ko de ay mbiram méttiwu ko ay problème biir këram mook njabootam mook ay soxnaam mook ay doomam lan moo ko métti allazina yusaari'uuna ila al kufri ñi nga xam ne def lu bon moo leen gënal def lu baax bu ñu leen woowee ci jàkka ji duñu wuyu ji bu leen stade bi woowee stade du leen woo sax ñu dem waaw bis bu làmb amee waaw bilaali jël micro bi naan allahu akbar allahu akbar hayya ala salah hayya ala alfalah gars yi duñ ko duñ dem wuy ji te ñu ngi leen di woote wala yàlla bu soxlaa day woote iblis bu soxlaa du woote te day fees d'accord ngeen bu ñuy julli dañuy nodd ñëw leen ngeen julli kenn du dem même bu ñuy def waxtaanu diine sax conférence da ngay gis ñu waa ji jël micro bi naan salaamaaleykum yéen waa koñ bi la ñuy waxal yéen mbokk yi oustaz ñëw na mu ngi ni toog yéen rek lay xaar parce que lu baax la mais bu doon musique kenn du woote waaw ñëpp ah man damaa fi njëkk damaa teel a ñëw quatre heures laa ñëw ci naaj bu tàng bi di xulli bët nag allahu akbar waaye bi ñu waxee diine moom yenn saa sax nga gis ko xam ne dafay daf la daf la daf la bëggut a gànt daf laa bëgg a wax duma ñëw de te naan waaw waaw waaw waaw dina waaw dinaa fa jaar day ñëw ne cib rek ne cef ne dafa xaw a kii rek dem yoonam daw ba pour bañ a déglu waxu yàlla parce que xam na ne bu fa toogee dégg dëgg yàlla bi waaye day daw ñu ci paa yoo xam ne duñ dem conférence ñi daw am na ci xale yu góor yoo xam ne tamit comme noonu waaw dañuy ñëw rek mooy lan acte de acte de présence naa ñëw ba ñu gis ma rek booy xoolal deux minutes laa fay def booy xam naa ñii luñ bëgg dañ ma bëgg a def ibaadu mais man mënuñu ma def ibaadu booy man pareeguma damay branché wu ba ci kanam damay bondé damay géré waaw gérel de gérel bu baax na nga yëg ne bisa nga ñëw yàlla dina la géré te géré boobu yàlla di la géré moom doo rëcc ndax yàlla dana la canaliser ci bàmmeel boo xam ne soo jógee ci kaw mu ne la tëpp téye nga dem droite mu téye nga dem gauche mu téye nga bëgg a wàcc ñu téye malaaka bi ne la dalal bàmmeel bi ne la dalal anal xabru may bàmmeel da nga doon cëppi cëppi cay da nga naan ne teg da nga doon bonde tey da ngay nooyi da nga doon dox ci sama kaw di xaqataay tey da ngay jooyi da nga doon lekk tey samay sax lekk la anal xabru wala anal xabru anal xabru may bàmmeel ndeysaan benn waaye mu ne waqaftu alal qubuur waqaftu alal quburi musalliman sama xarit dafa dee mu ne sama xarit bi bi mu dee ma toog ndeysaan ay at dégguma ko gisuma ko moom sama xarit bi benn bis rekk ma jóg sol samay dàll dugg bàmmeel yi ma ñëw di dox di dox di dox ba yegg ci sama bàmmeelu xarit bi bi ma yeggee ci sama bàmmeelu xarit bi ma daal di nuyu daan ne assalaamu aleykum waaye mu ne li ma jaaxal mooy falam yu radd jawaabi kenn tontuwuma ndeysaan te nuyoo naa de waaye kenn tontuwuma nuyoo naa waaye ñi ma fa fekk ca baar bàmmeel yi kenn wuyuwuma moom xarit bi mu ne waaye yow sama xarit maalaka laa taruddu jawaabi lu tax dooma tontu allahu gars yi mos ngeen dem ci armeel yi kenn ma mos a dem fi ci armeel yi ndeysaan bi nga demee ci armeel yi nga nuyoo ndax fay nañ la ki nga doon seeti ndax gis nga ko ndax wax nga ak moom ndax wax na la foofu lu fa nekk allahu akbar gaa yi foofu tekk rek tekk dof bi daa romb armeel yi ne ñaw noppi ngeen de seen làmbi ñu ngande waaw mu ne ñaw dag day wali yen tukulóor yi on ndej ƴii de i jom on kalta oyi ɗo huljinannoɓe nan ɗo ɗo noddinannoɓe nan ɗo ɗo awluɓe nan ɗo on ndej ƴii de dengen tukulóor boobu de ana tukulóor yi dengen tukulóor boobu dof bi moo ko waxoon de dof bi xam nga lu mu wax dafa romb armeel yi mu ne ñaw noppi ngeen de seen làmbi ñu nganda yi yéen a ngi nii noppi mu ne fii noddukat yaa ngi fi seen làmbi ñu nganda yi di yuuxu ci micro yi noppi ngeen de wax na dëgg wala waxul dëgg mu ne fii géwél yaa ngi fi ne pat ak seen làmbi ñu nganda yi ñaw noppi ngeen de mu ne ñi doon sara xolle di def loolu seen gémmiñ yi mu ne ñooñu noppi ngeen de acca wax leen mu nga foofu ku fa dugg noppi waaw foofu mooy cité cee leeral ah xam ngeen cité cee leeral am na cité nangam cité cité cité cité foofu mooy cité cee leeral ku fa dugg ne call kenn du fa wax waaw foofu benn baat rek lañ fa wax ñëpp noppi silence léeg-léeg tribunal gaa yi dugg tribunal coow li na kur ñu fëgg table bi ne silence s'il vous plaît gaa yi ne teg waa ji benn yoon lay wax rek ñoom noppi allahu akbar góor gi ne waqaftu ala alquburi musalliman qabra alhabibi fa lam yuradd jawaabi taxaw naa ci sama bàmmeelu xarit nuyu ko waaye kenn tontuwuma mu ne ko a xabibum malaka la taruddu jawaabana e waay yow sama xarit lu tax dooma tont anasita baadi xillatal ahbaabi danga fàtte ne man ak yow dëgg dëgg ay vrai gars lañu woon ay vrai copain lañu woon danga ko fàtte ba ma ñëw fii tey di wax ak yow nga bañ ma tont anasita ndax danga fàtte baadi خلة الأحباب قال الحبيب وكيف لي بجوابكم خربنا كنا كلا لتنتو وكيف لي بجوابكم أنا رحين جنادل والتراب من في من نكتي سخي سوف سيما جاب نو لay tonto maa ngi fii tey ci biir suuf suuf see ma téye mënu maa ñibbi sax yee ma wër di ma lekk waaye yow sama xarit naka laa lay tontoo xaaral ma wax la akala turaabu mahasini fa nasitukum maa ngi la yëgal ne nan laa meloon dama jantaloon nekk booga entraîné ba ceene bu ma daan dox ci kaw suuf buddi laa daan sol di bonde sol ngando dàll sol ngandum jëngal kiris karas sama tubéy bi maa ngi la yëgal ne tey akala turaabu mahasini fa nasitukum suuf see lekk lépp lu rafetoon ci man moo tax ma fàtte la akala turaabu mahasini fépp fu rafetoon fu ma daan leeral di diw di bomb wala ma daan pompe pour dugg pour ceene lépp suuf si lekk na ko looloo tax fa nasitukum ma fàtte leen wa xujibtu an ahli xaaral ma wax la de information bi des na de yow sama copain comme tey danga ma seet si xaaral ma wax ak yow wa xujibtu an ahli wa an atrabi gis nga tey ndeysaan sama waa kër maa ngi leen bëgg a gis mënuma leen gis samay copain maa ngi leen bëgg a gis mënuma leen gis bi may ñëw fii bàyyi woon naa ñeenti jabar dëkk ba maa ngi ci bëgg a gis sax kenn mais mënuma cee gis kenn ñeenti jabar doom ju ci nekk amoon naa ak moom jabar ju ci nekk amoon naa ak moom ñeenti doom doom yooyu sax maa ngi leen bëgg a gis mënuma leen gis ndeysaan ndax dañ maa baare sama diggante ak ñoom mënatuñ maa gis mënatuma leen a gis kon soo demee yow sama xarit egsil sama kër waay demal waxal sama soxna samay doom fa alaykum minni salaamata qattaat minni wa minkum xullata al ahbaabi la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi waaji nee na wa xujibtu an ahli wa an atrabi dañ maa baare mënatumaa gis samay soxna mënatumaa gis samay njaboot kon yow maa ngi lay yóbbanti soo ñibbee fa alaykum minni salaamata qattaat yéen sax daa ngeen ma nuyu waaye seeni nuyoo ndeysaan arrêté ngeen ko amul kenn ci yéen sax léegi ku may seeti ana diw ana diw ana diw ana diw ñoo ñëpp bi may dund maa ak ñoom ñoo doon ànd ndeysaan bi ma deewee tey def na dix ans kenn ci ñoom duggul ci bàmmeel yi sax taxaw ci sama bàmmeel ñaanal ma gis nga def na tey quinze ans ñooñu ma doon àndal nga xam ne maa ak ñoom ñoo doon bokku néeg fuñ ma gis gis leen mbooloo mu ñu taxaw ma taxaw suñuy dox maa ngi ci kanam bu ñuy waxtaan maa ngi ci groupe bi tey bi ma dégg léegi mën na 15 ans amul kenn ci ñoom ku taxaw ci sama bàmmeel sax pour nuyu si ma lépp dagg na kon nag yow sama waay soo ñibbee nuyul ma leen loolu waa ji di jàngale ñun ñii la koy jàngal ñun ñii la jabar di bàyyi doom dinañu bàyyi ay mbokk dinañu bàyyi xarit dinañu bàyyi am di jàmm dinañu bàyyi danañ ñu jël sànni ñu ci armeel ya sunuy bàmmeel moxuñu funax yaltiyeeg sindax yi dugg ci di ko gas kenn dootuñu ziyaare ci kenn dootu la ziyaare ci mu nga kon nag mbokki jullit yi dara desu fi rek lu ñu góorgóorlu jéem a jaamu suñu borom wax ji daal li muy bari bari suñu bëggee dégg dëgg mooy nan leen dem jaamu yàlla dañ bàyyi caaxaan yi bàyyi dem jaamu ji yàlla yàlla li mu wax mooy dëgg de waaw lu mu yàgg yàgg bis dina ñëw danañ la wàcce sa lal dugal la ci morgue bi sang la sang la waaw daan ne ilal maqabir jëme la bàmmeel ya bàmmeel nag nit daf koy préparé bàmmeel kër la gu ñuy waajal waaw yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su ngeen xamoon li ma xam di ngeen waaj law alimtum ma alimt su ngeen xamoon li ma xam mu ne di ngeen jooy lu bari di ngeen ree tuuti di ngeen génn koj ñi ci bàmmeel yi wax ak ñoom mu ne su ma su ngeen xamoon li ma xam kon doonte leen bànneexu ci jigéen ñi yonent bi li ko metti mooy lan mooy ñi nga xam ne yusaari'una ilal kufr dañooy gaaw di daanu ci bàkkaar bàkkaar lañ gën a bëgg ak tiyaaba wala Sénégal tey mbokk yi Sénégal tey bàkkaar ak tiyaaba lan lañ gën a bëgg damay lim ay mbir bu ma wax tontu leen jàkkaak làmb ban lañ gën a bëgg ah jàkka ak marche luñ gën a bëgg gis nga loo wax rek da ngeen di wax tontu parce que loolu moo fi nekk allazina ñi nga xam ne yusaari'una dañuy gaawut bu gaaw sooy wax yàlla kenn du la dégg waaye boobu gaañ xoolal nan dem kii daf ñuy tardel loolu moo métti yonent bi yonent bi mu xoolee nit ñi mel noonu affaire bi métti ko yàlla mu ne ko eh bu mu la métti bàyyi rek bu mu la métti ndeysaan xool loolu ndeke dafa métti yonent bi allazina yusaari'una ñi nga xam ne dañuy gaawtu lan mooy seen gaawtu yëpp ndax dem julli ji déedéet fil kufru dugg ci kéeféer def lu bon mooy yàlla waaw waaw waaw koo gis loolu la yàkkamti naa gaaw rek ba def dara naa gaaw def lu bon am naa occasion bi naa ko def quoi dootuma ko rate boo yow defoo affaire bi non yow yow doo tekki amoo booy bi non yow pare nga yaa moom kese mu seet si la kii nga xam ne du gaaw a génn gis gars yi di la xas nga naan noonu ñu ne la booy dootoo tekki pare nga allahu akbar la yaxzunuka alladina yusaaricuuna fi lkufri bum la métti de yow yonantu bum la naqari bum la tere lekk bum la tere naan bum la tere jaamu yàlla gaa ñi nga xam ne kéeféer moo leen gënal islaam bàkkaar lañ gën a bëgg ak tiyaaba waaw muuraay xoolal muuraay Sénégal muuraay ak meesoog sollu bon lan lañ gën a bëgg yusaari'una fil kufri xeesal meesu paccal say ween loolu lañ gën a bëgg ak mel ni yàlla bëgg soo waxee loolu sax barki démb sax dégg ngeen seen borom xam-xam boobu lan la wax nee na girafaas dara nekku ci moom mbax ne yem rek mbax ne ak girafaas benn lañu ah te gars yi naan est-ce que mu ne góor mun na mun na akolaat jigéen dara nekku ci yonent bi moo wax dëgg yonent bi septième siècle la toog naan innama axaafu alaykum ñu ne ah mu ne aimmatil mudillin ida waqa alaykum sayf lam yurfa ila yawm alqiyama li ma ragal ci yéen sahaaba yi ne ah mu ne borom xam-xam yuy réeralaate njiit yuy réeralaate loolu laa ragal tey loolu am na Sénégal ñan ñoo leen mi def def ni def nii ñu mel ñi leen jiite nii nu mel nii ñi ñu jiite moo tax nu mel nii parce que jaarale wuñ ñu ci yoon wi moo tax nu mel nii waaw ndeysaan yonente ngi noonu de nga xam ne mbir yi daf ko metti waaye yàlla di dalal xelam ne ko bul mu la metti ñooñu nag ñan la min allazina ci gaa ñi nga xam ne qaalu dañoo wax amanna gëm nañu waaye fan bi afwaayihim seen gémmiñ lañu wax gëm nañu walam tu'min gëmul qulubuhum seen xol yi gaa yi lii maa koy wax wala alxuraan la wala lii sama téere rek la nekk wala téere yi ngeen yor nekku ci naam ko ko traduire en français waaye ndax ñu xam ne lii du samay wax xam ngeen saa yi ngay wax ñu ne kii kii day tooñ lii texte la sans commentaire texte texte la yoo xam ne mu ngi ni ngeen tiim ci gaa ñii lan moo tax yàlla ne bum la metti ndax ñoom dañu ne gëm nañu waaye fan moo gëm gémmiñ rek eh waaye je suis musulman day au nom de Dieu je suis musulman billaay julli la xoolal gënoo ma gëm yàlla ñëpp a gëm da ngeen a gën a gëm nit ñi waay waay bu leen ñu sonal waaye ñun ñëpp ay julli la naa non dafa am pratiquant ak non pratiquant quoi musulman non pratiquant loolu la ñu dama dama dem hôpital fëgg benn bureau am ku ne wooy ma ubbi gis jigéen ju xonk cur xam naa naar la def bi yàgg bopp neen sol blouse hôpital toog ma ni ko asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam wa rahmatullah ma ni ko musulman mu ne si ma ne ko ana kaala gi mu ne jullit laa ma ne ko waxuma loolu de dama ne ana kaala gi mu ne maa xam naa sama diine ma ne ko sa tëtëtët xam nga yow man laajuma la li nga dama ne ana kaala gi non xam naa sama diine non non non ma ne ko waaw yow waaw da ngay xuloo man laajuma la loolu de xam nga lu ma laaj ana sa kaala loolu dong laa laaj mu ne non man du ma muuru ma ne ko musulman bu dul mu musulman bu dul muuru loolu ban musulman la xanaa lu bees la ci islam waaw mosoon naa am benn taalibe bu jigéen da koy jàngal suñu école dañuy exiger xale yi nañu muuru fal force ku mu neex ku mu naqari moom mu ne man sama yaay nee na du ma muuru de ndax ñun nangam lañu mu wax benn tariixa mu ne ñun nangam lañu ñun duñu muuru ma ne ko kon de doo jàng ci école bi bare nga ne sa yaay ne la yóbbu feneen fii moom muuru rek kenn du fi greffage kenn du fi mees kenn du fi xeesal kenn du fi sollu gàtt kenn du fi dangal kenn du fi paccal kenn du fi def bopp neen góor ñi kenn du fi zulu kenn du fi def ay tere ci bopp kenn du fi sëqal bopp jëmale ko yowmal xiyaamati kenn du fi kiris karas tubéy kenn du fi sol bodi kenn du fi sol tisatu yu am ay mbër islam rek tim ku bëgg indi sa doom ku bëggul yóbbul te terewul dañuy am ay élèves ah kon ñun ñoo ci des kon ñun ñoo ci des te li ma wax ak yéen fii noonu laa leen koy waxee réunion parce que bu ñu ubbee rek dañuy réunion ak parents yi dama naan leen fi école islam la. na d'accord ngeen ñu ne waaw ma ne ku bëggul sa doom indi is dugg dund l'islam jëlee ko fi depuis léegi na dem moo tax nga gis booy am formation yu garaaw. billaahi wallaahi voilà parce que soo bëggee am jullit da nga leen di yar da nga leen di tàggat former leen entraîner leen ci soo bëggee am ay jullit da nga leen di tàggat yar leen ci former leen ci lu ma am na ñuy rëcc am na ñuy rëcc nag di sànku mais am na ci ñu bëri ñuy baax wax dëgg yàlla am na ci ñuy rëcc nag mais am na ci ñu bëri dañuy baax parce que dañ leen jaaral ci lu baax kon nit ñi foog ñu leen di yar ci bëgg lu baax bañ a bëgg lu bon mais ñun dañ ñoo yar ci bëgg lu bon aaya bi ñi muy wax yow yonent bul metti lu seen mbir mooy lan min allazina ci gaa yi nga xam ne qaalu dañoo wax aman naa gëm nañ bi afwaahim xoola jullit boo xamante ne gémmiñ gi rek a gëm yàlla gémmiñ gi balaa ngay xam ne gëm na yàlla rek mu ne la gëm naa yàlla kese kese soo xoolee yaram bi ci kaw ba suuf doo gis lu wane yàlla waaw waaw moo tax bokk na ci système mu daawa yi waaye daawa jigéen ju muuruwul bu la ne woon gëm naa yàlla rek ne ko luy wane ne fii nga nekk gëm nga yàlla lu koy wane fama alaamadu imaanik luy wane ne gëm nga yàlla lu koy wane dangaa xeesal dangaa mees dangaa paccal li nga sol baaxul luy wane ne gëm nga yàlla amul lu mu wax ku gëm yàlla soo ko gisee xam ne kii gëm na yàlla foog nga gis ci moom màndarga lan la alquran waxoon muhammadu rasulullah wallazina amanu maahu ashidda ala alkufar rohama tarahum rukkaan sujjadan yabtaxuna wa simahum màndarga yaa ngoog mu ngoog kon mbokk jullit yi yàlla ne yonent bi gaa ñii daal seen gémmiñ yee gëm yàlla waaye walam tu'min qulubuhum seen xol yi gëmul day sax gis ngeen ngëm yàlla goo xam ne ci gémmiñ kese la yam gémmiñ mooy jullitu billaay jullitu billaay waa ji lan moo gëm ci moom yàlla làmmiñ bi kese billaay jullit laa billaay weeru koor gi passé laa gëjoon julli waroon naa koor gi passé julli woon naa de wala jullit boo xam ne ba mu gëjee jàkka koor ba koor lay dem jàkk léegi léegi bi ñu sëlmalee jumaa ndeysaan am na benn mbokk bu baax bu ma nuyu fii tuuti mu jooy mu ne ma wallahi alazim daaw ma dem jàkk mais ci koor gi laa ko commencé ndax waxtaan yi may déglu moo tax léegi boobu ba léegi tardé wu ma jàkk c'est bon dana ko yàlla dimbali ab jullit nga ni man jullit laa waaye yow sa làmmiñ rek moo gëm yàlla làmmiñ làmmiñ yàlla nee na la ngëm fan lay nekk moo tax yonent ba muy wax al iman dane ha huna mu jël baaraam bi joxoñ xol bi ñii ba leen di yàlla di dàq seen ngëm fan la yàlla wax ngëm gi duggagul ci xol bi ngëm ci xol lay nekk moo tax arkaanul iman yëpp fil qalbi la arkaanul islam al jawaarih déglu leen ma de arkaanul iman ñaata la ponki ngëm yàlla ñaata la juróom benn juróom benn yëpp ci xol bi la al imaanu billah al imaanu bil malaika al imaanu bil rusul al imaanu bil kutub al imaanu bil yawmil axir al imaanu bil qadri xayrihi wa sharrihi juróom benn yëpp boo leen tënkee xol bi la moo tax ngëm ci xol lay nekk xol nag yàlla moo xam la fa nekk rabbukum aalamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kaana lil awaabina gafura moo tax ngëm fii moo tax dañu war a préparer xol yi ndax ngëm gi dëgër xol bi bu fi ngëm nekkul ngëm gi ci làmmiñ bi rek lay yem kon du dëggu képp koo xam ne sa islam ci làmmiñ la yem am nga problème loo tax Sénégal nga dégg ñu naan islamologue islamologue islam bu ñu log nii nga ko logee nii comme tàngal boo ngaangee nu muy def lu ñu log boo ngaangee nu muy def day wadd islam kenn du ko log nuñ koy def addu alayha bin nawajiz yonent bi nee na ngeen dugal ko ci dernier bëñ bii ngeen matt ko ne tekk addu alayha bin nawajiz matt leen ko fii waaye log log lu ñu log ak lu ñu matt lu gën a dëgër dañoo log islam log du dem gaa ñi mbokk yi yàlla moo nu wax moo nu dàqal seen ngëm waaw yàlla ne ngëm gi eggul ci xol yi ngëm ci xol lay nekk ngëm day yokk day wàññeeku al iman yazdad wa yanqus eh eh ñëw leen bu leen dugg ñëw leen fii yéen ñett ñëpp ñëw leen abu nañ toog foofu sawet eh kaay fi yow indaale sa daal yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa min allazina ak gaa ñi nga xam ne haadu ay yahud lañ gis nga ñii ñëpp dañu ne gëm nañ yàlla waaye seen làmmiñ gesal gëmun aaya bu njëkk bi ñan ñoo ko moom nun ñaareelu aaya bi ñan la yahud yi al wa min alladina haadu sammauna lil kadib yoo xam ne déglu fen rek lañ fi nekkee déglu ay fen ku bi rajoom di maye rek boy jàppal diw ku bi teleem di fen rek seetaan leen diw loolu rek lañ fi nekkee sammauna déglukat lañ lil kasi bi ay fen gis ngeen barki démb ba léegi barki démb démb tey ay yi ñu jàng fan lañ fi gis mu ne nañ yërëm ku dee ndax jàng nañ fi nañ nañ yërëm ku dee jàng nañ fi lu ñuy ñaanal néew xoolal barki démb ba léegi ci ay luwaa la nekk barkaati démb lan la woon aaya agresseur barki démb lan la woon sàcc wala démb la démb moo doon sàcc tey ñii nga xam ne dañuy gaawtu di këpp ci bàkkaar di wax ne gëm nañ yàlla te du dëgg gis ngeen ndeke alxuraan ay àtte la ay luwaa la yoon la wu yàlla rëdd waaye du téere barkeelu waaye ma teg ci sama loxo waay waaye ma raay waay jaajëf waay jaajëf waaye sa kaamil bi dafa rafet de raay rek raay raay Sénégal ak ñoo bëgg raay waaw benn mbokk wax na ma démb ci téléphone mu ne moom dafa jaaxle da ngay gis ku dee ñu ne diw dee na ñu woy menuisier métallique bi moom ci boppam mu ñëw dagg ay weñ suude weñ yi peinture ko ba mu rafet ñu ñëw def ko ci bàmmeel bi pour protéger ko nee na mu am trois jours moom mi nga xam ne moo daggoon weñ yi moo ko suude moo ko xoos moo ko peintir mu ñëw naan ni weñ yi muy raay weñ yi naan ko di di ko raay di diw di diw ci kanamam mais weñ yooyu muy raay fan la jóge woon ku ko fi def kan moo ci doon liggéey kon kay moom moom jarul woon mu koy indi fi na ko raay fee mu nekkoon rek waaw ndeysaan dama ànd ak ay maire màkk ñu dem kër gi yonent bi juddoo baytil lazi wulida fihi rasul loolu ngay gis ñu bind ci bibliothèque lañ ko def ñu egsi rek maire yi daw ci miir bi di raay naan ni allah waay waay waay waay fii la yonent bi juddoo ñuy raay kër gi naar bi xool ma ne ma wax leen lii kenn du ko raay ma leen eh wuy leen kii ñu ne lu mu wax mu ne leen mu ne ma wax leen haza xajar la yadur wala yanfa ma ne mu ne lii xeer la comme xeer yi ngeen bàyyi seen dëkk miir yi ngeen fa bàyyi lii ciment la ñu ne wax ko ñoo tey ma ne ko dégg nga ñu ngi nii de waaw ñii ñooy waa Sénégal taarif ahla Sénégal mu ne Sénégal ma ne ko naam ñoo ngi nii yoo gën dëgër bopp ci àdduna bi ñu ngi nii kenn du leen ne yàlla nee na bañ na waaw kenn du ne yonent nee na bañ na waaw ñu jóge fa de dem Uhud ñoo rek gars yi commencé far ay xeer karaj karaj karaj ma ne mère lu ngeen doy xeer yi eh dimbali ma ne xeer yaa ngi Sénégal ñu ne ma xeer yi ak xeer yi du benn différence bi ndax bu ñëwee da ngeen ko baxal lekk xeer kese la lépp lu nekk ci kaw suuf suuf la bëri nga xaalis de lépp lu nekk ci kaw suuf suuf la mu nga sunu borom nee na ñii wa min allazina gaa yi nga xam ne haadu ay yahud lañ sammaauuna lil kazibi ay kasirun dañoo bëri lil istimail kazibi ci déglu ay fen fen rek fen rek fen kese kese kese kese kese waaw bu ñu yenn saa yi nga gis rajo yi def journal pare ñu ubbi wax sa xalaat nga gis kuy fen fen yoo xam ne wala benn événement am nga gis la ilaha illallah dañoo mën a fen dañuy fen bay naaw laa la wax waaw fen kese dara du ci dëgg waxoon naa leen sànq danger fen yàlla bëggu ko sammauna ay déglukat lañ li qawmin ñeel ay nit ñi nga xam ne aaxari na ñeneen waaw mën a fen fen yoo xamante ne dañ koy tasaare jële ko ci kii yóbbu ko ci kële jële ci kële yóbbu ci kële fen yi tasaaroo ci ay minutes yu ndaw fen yi tas ci dëkk bi fekk dara du ci dëgg ñii koy def nii xam nañ ne du dëgg sammauna lil yahud dañuy déglu yahud yi aaxari na ñeneen lam yatuuka ñooñu ñëwuñu ci yow ka yahudi xaybar comme yahud yi nekk xaybar mu nga information boo xam ne ay fen la moom la gaa yi xoolal démb démb dañoo jekki-jekki rek rëbës fees dell ak i nit yu jékki-jékki rek fële point 1 fees dell ay nit nit ñi commencé taxaw ci tali yi lan la dañuy libéré Karim xool ay fen kese jékki-jékki gisuñ dara ñëpp ñibbi fen yooyu fu ñu ko jële waaw wala poisson d'avril sànq rek laay mujjee lire histoire poisson d'avril xoolal julli ñi ni ñu gëmee loolu di ko def te xamuñu lan moo leen ci daloon biñ demee Espagne la espagnol yi bi islam daanoo Espagne dañoo def benn benn dil bu garaaw pour jeexal jullit yi ci biir Espagne ñu ne bépp jullit bu des ci biir dëkk bi nga bëgg a génn dëkk bi dajaleel say njaboot bato sàngam mi ngi ñëw nga ànd ak ñoom génn dëkk bi jullit ñëpp dem dajaloo ci tefes gi ñu fekk fa rey ñëpp loolu mooy poisson d'avril xoolal ñun niñ ko gëmee histoire poisson d'avril foofu la jógee sànq laa koy mujjee lii ci facebook bi sànq waaw yal na yàlla dimbali mu ne samauna ay déglukat lañ li qawmin ay nit ñi nga xam ne aaxarina ñeneen ñu mel ne yahuti xaybar ak yahud yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen wàll yi ndeysaan mu ne ñii ñëpp ak ñi nga xam ne lam yaatuka dikkeeguñ la yu xarrifuna dañuy soppi dañuy wëlbati alkalima baat min baadi mawaadiihi ci yenn ci ay weruwaayam fekk yàlla lii la wax ñu daal di koy changé dem ne yàlla waxul loolu waaye lii la wax ñu changé ko waaw yugayiruuna xukma allahi dañuy changé atte yàlla allazi bi nga xam ne tadammanahu lkalaam nga xam ne waxam la ëmb yaquluuna lahum in aftuuka fi zina almuhsinina biljald wa tahmim bilfahm faqbilu zalika lii mu ne aaya bi dafa wàcc ci xew-xewu njaaloo bu amoon nazalat fi hadisati zina alyahudayni ñaari yahud ñoo njaaloo woon bu góor ak bu jigéen ñëw na ci saxiixayni buxaari ak muslim hadisu jaabir mu ne zana rajulun min ahli fadk benn góor bu bokk ci xeet fadk moo njaaloo woon ñooñu bi njaalowee ñu daal di bind ci ay yahud yóbbu benn lettre ci ay yahud yu dëkkoon Medina ñu leen di laaj ñu ne leen yéen yahud yooyu dëkk Medina dëkk ak yonent bi salu muhammadan an zalika njaaloo bi na ngeen ko laaj yonent yàlla muhammad fa in amarakum bil jaldi fa axuzu bu waxee ne ki njaaloo dañ ko war a caw ngeen nangu su waxee dañ ko war a raj mu ngeen bañ biñ demee laaj yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi daa di woo kenn ci seeni borom xam-xam ku tudd ibnu suuriya ba mu yegsee comme yahud la woon te jàng na tawraat moo ci raw ci borom xam-xam ya yonent bi ne ko naasat nii billahi maa ngi lay wax nanga ñu laaye biir ci yàlla ñoo ngi lay booleeg yàlla lii ñu lay laaj waxal dëgg ndeysaan waa jooju mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah yow day naasat nii billahi boole nga ma ak yàlla de comme nag ne nga ma wax dëgg kon xaaral ma wax dëgg rek boo demee ci tawrat ñu ne ah mu ne bët dana njaaloo ñu ne waaw boo demee ci tawrat ñu ne waaw mu ne ku ko reconnaître da nga njaaloo ku njaaloo reconnaître ko yow njaaloo kan nga soo demee ci tawrat da nga fa fekk xol day njaaloo ñu ne waaw boo demee ci tawrat da nga fa fekk ñeenti nit bu ñu seedee ci jigéen wala góor njaaloo na njaaloo na lii de moo am sunu téere fa qaala annabiyi sallallahu alayhi wa sallam huwa zaak yonent bi ne ko wax nga dëgg lii moo fa nekk kon gis nga gaa yi lan lañ bëggoon yonent bi changé kalima bi baat yi yuharrifuuna al kalima am mawaadii loolu moo am tey Sénégal bu yàlla ne dafa ñuul ñu ne déedéet dafa weex su yàlla ne dafa bula ñu ne dafa morom su yàlla ne guddi ñu ne bëccëg bu ne bëccëg ñu ne guddi bu ne dafa xiin ñu ne ko xiinut loolu mooy sunu problème tey waxu yàlla ñu koy changé di ko def nu ñu neex bu yàlla ne dégg naa keroog dama def Thiès benn tudd ñuy waxtaan ci diine am ku jàngale aaye qul lil muminina yaghuddu min absaarihim ñu pare benn paane man de aaya bii ngeen doon wax ñu ne ah mu ne am naa ci xalaat luy sa xalaat mu ne yéen da ngeen ne yàlla dafa tere ku xool mu ne yàlla terewul xool xulli la tere xulli ñu ne ko xulli mu ne waaw gis nga waaye dañuy jël aaya yàlla yi di leen changé su yàlla ne nii ñu ne nii bu yàlla ne jigéen dafa war a muuru ñu ne déedéet waxul muuru musóoru la wax wala tekkol loolu moom la lañu def fi su yàlla ne góor ak jigéen buñ joxante loxo ñu ne noonu dafa wax boo ko joxee loxo bul ci yëg bànneex bul ko yëg quoi bul xam kóor nuyu mënu góor la wala jigéen la ñoom ñoo ñemee yàlla kat mooy nuyu fii jigéen te du sentir ne jigéen laa nuyu ñaateel ngay dégg ku ne mais booy bi loxo yi dafa nooy loxo yi dafa garaaw sa të të të mais booy bi loxo yi ñaata yoon ngeen koy dégg yàlla ne lii ñu ne lii waaw lii ñu ne lii yàlla ne dem leen màkk ñu ne màkka jarta dem kaaba gi yàlla indi na ko fii mu ngi fii ku dem foofu dem nga kaaba hmm. ñaata yoon ngeen di dégg loolu gis naa benn jàkk mu ngi fële booru géej te jàkka ji garaaw bi mu garaaw la ilaha illa stratégie bi ñu def jàkka ji fi ñu ko def boo yëgee avion ba avion bi di tourner di jël géej gi ci jàkka ji nga naan teg ak bind bi bind bu weex bi karo yi yu weex yi ci jàkka ji nga naan teg ak monument Abdoulaye Wade bu Abu Aram boobu ñoom ñaar ngay mujjee gis ci Sénégal mu leer na ne du hasard ñii liñ def fii jàkka jooju xam ngeen ki ko fa tabax lu mu wax nee na jàkka jooju dafa dafa dafa communiquer ak benn jàkka bu nekk kaw asamaan bu tudd bu tudd baytul maamur nee na même ni mu tabaxee jàkkaam bi baytul maamur ci kaw asamaan noonu la ko yàlla tabaxee foofu moom après jibril moo ko indil maquette bi mu def bu mel noonu fii ci wetu géej gi vendredi bu jotee ku sol lu ñuul du fa dugg ñi jullee ci biir ñëpp lu weex la ñuy sol ay nit ñooy taxaw ci bunt bi ku sol lu weex du dugg xam nga jàkk bi nga fa def waaw kee wax na tur bi waa jooju seen ginnaaw wax na turu jàkka ji mu ne yuxarrifuna dañuy soppi alkalima baat min baadi mawaadiihi yenn ci ay barabam yaquul nañu naan in uytutum haza buñ leen joxee lii jël leen in utitum haza buñ leen joxee lii jël leen fa xuzu wa in lam tutawhu fahzaru buñ leen ko joxul mooy tandiku leen gis nga de suñ leen waxee lii nangu leen suñ waxul leen noppi leen seen yan nekk ci jalgati leen def leen lu leen neex loolu mooy diine moom la ñuy wax fii moom la ñuy def fii aaya yi ñuy wax ni moom la ñuy dund fi Sénégal tànk ak cànk mbagg ak mbagg lii yàlla di wax fi yahudi ñun moom la ñuy def waaw dañuy soppi alxuraan bi di ko traduire soo soo demee léegi ñu ne alxuraan ak Kaolack mu ngi ci alxuraan Kaolack ah ah am na kenn koo xam ne mu ne laay mu ngi ci alxuraan laay ñu ne ko fan mu ne naaqatu laay dégg nga de la ilaha illallah dañuy jël alxuraan bi di changer ku nekk bëgg cee dugal sa sa kii ne man yàlla wax na sama biir kii si sama tur ñun suñu turu kii yàlla wax na ko ci alxuraan mu ngi nii waaw ñun sax li ñuy def yàlla ànd na ci yooyu ban kii la amuñu njëriñ yow xam nga ne sax yow mi koy def xam nga ne da ngay nax sa bopp yàlla wax na ci alxuraan bu leen discuter ak ñi nga xam ne yaxtaanuuna anfusahum dañuy nax seen bopp dañuy war seen bopp nit du nax boppam te yàlla li mu wax moom dong mooy dëgg mënoo ko changer boo koy changer Sénégal nga koy changer waaye boo génnee fii foo wax ñu ne la du dëgg waa Sénégal nag comme ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa ku kii daa toog ci ay fen kii toog ci fen kii toog ci fen ma toog ci fen ñun ñëpp ñu ne ñun ñëpp ci ay fen lan nekk nan noppi te dem loolu mooy wax ji kenn ku nekk ñeme woo wax sa morom li ngay wax xam nga ne du dëgg pourtant war nañoo mën a waxante dëgg bi ndax yàlla li mu wax rek mooy dëgg leneen lépp dara du ci dëgg duñu muus ak waane ba yàlla li mu bëgg ñu soppi ko def ko caaxaan caaxaan yi nekkaat dëgg abadan waaw jàkk du mus a nekk stade stade du mus a nekk jàkk dëgg bi benn kese la alxaq waaxid dëgg benn la te ci yàlla la bàyyee ko moo tax yàlla ne alxaq min rabbik fala takunanna min almumtarin bul nekk mukk ci ñuy sikki sàkk ndax dëgg ci yàlla la bàyyee ko bul déngi déngi kon gaañaa ngi noonu nee nañ buñ leen joxee jël leen buñ leen teree bàyyi leen buñ leen joxul taxaw leen waaw lu tax wax ji lu tax wax yi ñu koy wax changé waxi yàlla li ko waral yooyu mooy réeral dëgg idlaalul xaq di indi ay fen di ko du dugal ci biir dëgg pour dëgg réer pour lan ay bàkkaar yu bari ak ñeme borom bi tabaraka wa taala moo tax sunu borom tegal leen ci ne subhanahu wa taala wa man yuridi llahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay ku yàlla nara alak nara fitnaal kenn munu laa teg ci yoonu dëgg mbokk yi wa man yuridu llahu fitnatahu ku yàlla na mu fitnaal falan tamlika lahu min allahi shay munoo fexe ba yàlla du ko teg fitna boobu mënaloo ko indil dara lu koy protéger gis nga lu naaj bi tàng-tàng lu mu métti métti lu mu ñàkk-ñàkk waa ji bu ko yàlla naree fit fitnaal di nga gis fitna boobu tegu ci kawam kenn mënu ko traité fitna bi dal ko ndax day xabtalu te xamul ne yàlla moo koy mbugal mu ne ulaika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne lam yaridu llahu an yutahira qulubahum lam yuridillah yàlla nammul an yutahira muy laabal qulubahum seen xol yi ñii yàlla bëggul leen a xaw bëggul leen a defal dara lu baax bëggul leeral seen xol yàlla bëggul ñu nekk ay jullit ndax dañoo yàqu ba pare moo tax yàlla soxlaatu leen ulaika ñii déggu leen bu baax de mu ne allazina mooy ñi nga xam ne lam yuridillah yàlla nammul an yutahira qulubahum mu laabal seen xol nit su yàlla nammul def ci moom yiw man yuridullahu bihi xayran ku yàlla nammal yiw yufaqihu fi diin yàlla ku mu nammal yiw yasrah sadrahu lil islam day yaatal dënn bi dugal ci lislaam ñii nag yàlla moo leen nammalul yiw moo tax yàlla moo leen alak waaw seen xol yi lu fa nekk mooy iñaan bokkaale naafiq ak bëgg lu bon mu ngoog fan la leen yàlla jeexalee mu ne ñii lahum am nañu ëllëg yowmal qiyaamati wala balaa ëllëg yowmal qiyaam fii ci àdduna lahum am nañ fi duniyaa ci àdduna xisyun gàcce wala hum fil axirati azabun azim ëllëg yowmal qiyaam allaaxira dinaa leen mbugal mbugal mu rëy mbokk yi sunu aaya tey mu ngi jeexee lahum fi dunya xisyun ñu mel nii yàlla nee na dinaa leen gàcceel àdduna kan moo bëgg yàlla gàcceel ko ku yàlla gàcceel rek torox nga yàlla nee na bu ma leen gàcceelee àdduna dinaa leen gàcceel alaxira teg leen mbugal mbugal mu métti wala hum am nañ fil axirati ci alaxira adabun azim mbugal mu rëy rëy rëy rëy yàlla nañ ci yàlla musal lii moo doon darsa tey ñoo ngi jéggulu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu amee ay laaj